maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu wér a wér di leen jox seen wàccuwaay ñëw pour def vidéo ci affaire maam Papa Diop maam Papa Diop nag bettul kenn man mii la bett man mi dëkkoon ci di werante man mi dëkkoon ci di xuloo ak ci di dàgg sante ndax maam Papa Diop ndax lu ñu wax ma ne maam Papa Diop sañul loolu maam Papa Diop sañul gis ni ñu sonnee maam Papa Diop sañul gis suñu coono ak suñu souffrance bi muy dem di ñu saraxee Benno Bokk Yaakaar maam Papa Diop sañul loolu dëkk ci di ci werante ba mu jaral ma lu ne moo tax lii bi ma ko déggee am naa mbetteel lool sénégalais yëpp nag nee nañ bettu leen ndax moom rek moo xamul ni woon dem nañ ma ne ko moom ak man man dong maa yëgul ni woon maam Papa Diop dem na maam Papa Diop bi ñu lay voteel pourtant gis nañ Benno Bokk Yaakaar de waaye dañ bàyyi voteel la maam Papa Diop nana leen ni saraxe nga sa bopp ba saraxe waaye ndaw yi nga àndal dem nga waaye doo yóbbu dara boo laajoon Idrissa Seck ndaamal Kajoor lii nga def doo ko def boo Bamba Fall lii nga def doo doo ko def maam Papa Diop tas nga suñu yaakaar woon nga peuple bi ku ko wax ak ku ko waxul waaye maam bi lañ la doon xaar maam papa Diop ñu ngi la doon xaar nga taxaw ensemble kaasal ñu man papa Diop yëg nga li yàlla wax ci góor jigéen maam papa Diop xanaa dund bu seer nekk ci réew mi yëgoo ko maam papa xanaa xamoo ni bu ñu xeful tuuti dinañ jaay suñu ngor ndax ñàkk maam papa Diop xanaa yëgoo li xew ci réew mi maam papa Diop xanaa hôpital Dantec bee ñu xaaj jaay ko yëgoo ko maam papa Diop xanaa suñu coono bii ñuy dund gisoo ko maam papa Diop lu la mënti jaral lii jaru ko. maam Papa Diop ñu ngi la doon xaar ci côté peuple bi maam Papa Diop ñu ngi la doon xaar ci suñu wet maam Papa Diop ñu ngi la doon xaar nga jooyee ñu suñu naqar maam Papa Diop ñu ngi la doon xaar nga feral suñu rongañ maam Papa Diop bett nga ñu ba fi bett yam maam Papa Diop su ma yeboo ni da ngaa trahir peuple bi waaye alhamdulilah rabi alamin ba tey maam Papa Diop yàlla mënoon naa dogal nga bokk ci ñuy dem 2024 waaye doo bokk alhamdulilah rabi alamin ba doo bokk ci ñi ñuy topp 2024 yàlla baax na yàlla ñu yàlla seggal anal ñu ñi nga xamante ni ñoom seen intérêt personnel moo leen ñor yàlla nañu yàlla falaxal ñëpp dàqal leen ba 2024 incha allah laa su boobaa sama waaji sama waa ji dinañ xam ni mbër la garmi la champion la dinañ xam ni champion bi ñëw na laa su ko defee warkat yeeg traître yeeg ñëpp sori ko ñëpp puus ko neexul ba neexul waaye maam papa Diop yëpp nga ñu mam papa Diop saraxee nga ñu mam papa Diop peuple bi buñ ko waxee ak buñ ko waxul mere nañ la mam papa Diop damaa yaakaar dangaa doyal ci politique xamoo noo koy defee nga ne naa ko jaar fii mam papa Diop tooñ nga ñu ba ci kanamu yàlla mam papa Diop teg nga ñu naqar mam papa Diop décevoir nga ñu ku ko wax ak ku ko waxul nag mam papa Diop lii nekk woon sa cër ci Sénégal de déedéet mam papa Diop xaaruñu la woon fii ñu ngi la doon xaar ci côté peuple.